wàccal ngeen fa toxoto yi wàccal ngeen fa toxoto yi parce que commissaire bi am commissaire bi nag pour pouvoir d'accord alors jël langu maman dafa di jël na photo yi jël nañ photo yi ngeen filmé surtout parce que sax ba arrêté Sénégal moomu leen moomu leen ko sama kër bi côté ba dama may dox Hey, hey, hey! No, no, no, no, no, no! Hey, hey, hey! Eh, sànni grenade. sànni leen grenade eh, pour lan pour lan ñuy sànni grenade non non eh. bàyyi ko eh bàyyi ko eh eh dañuy dox am nañu ci droit. sànni grenade sànni grenade. wàcc leen Malick wàcc leen. comme vous le constatez hein, service de l'ordre le maire de di Nous ne pas du voilà voilà. mais on a le droit de marcher non mais hé, hé commissaire il faut assumer assumer. Il assumer Assumer. assumer. may mettez, donc may non non non dugul waay dugul dugul eh eh teel kii waay teel kii eh eh waay sama mère laa téye rek eh. ah ma waaye wàcc leen tey oto yi waayeen monsieur le commissaire non non mais loolu nag ah lii du sama liggéey laa def ah. voilà waaw man fi ma taxaw nii defuma dara sama liggéey laa def yéen a ko gisandoo ah ñu ngi jiyee ñu àpp nañ le maire Barthélémy Dias ñun donc ñoko ko gisandoo le maire bart Barthélémy Dias da doon def dox mbokku le commissaire de Dieuppeul japp ko dugal ko ci biir auto bi dëkk bo xamné amul loi am nañ droit dox ñu yëg ci oto yi. ay Malick taal ñu dem. yéen ay nit sax. Malick demal. demal demal rek demal demal. aywa. Eh, oh. grand jégal ñu jégal ñu jégal ñu demal jégal ñu rek. say jégal ñu ñu ngi jugal. waaw ah, mais ma jàll ma jàll ba ma xuma la ba ma jàll. ba ma xuma la ba ma xuma la waaw ba ma xuma la. waaye demal demal. eh seen seen. donc ñoo ko gisandoo oto police bi arrêté na. le maire Barthélémy Dias parce dem defi son dox moom di ko yóbbu oto bàyyi fay ci kanam xaw ma fan la jëm exactement klaxonné ko klaxonné ko seen oto seen seen seen jël la gauche gaa tuuti jël la gauche demal rek bon xamuñu fan lañ koy ah. ñu ngi def le tout pour jéem ko rawale gauche gauche ngay def gauche ngay def waaw Le maire Barthélémy Diaz vient d'être arrêté par le commissaire Mbalo. Wow. 哎。 真敏感。 quá chứ lên quá chứ lên à. Eh, kena, bunga lah, dah mari dah deh, bunga lah deh. Eh, watch it and see. Hey, that's up. Hey, hey, come in one. Ah, ninyo. Yen le. No, ninyo. Hey, come in. You see me bro, ninyo. Hey, come in, Taufi. kii du wuk waxe vraiment ñun tamit suñu liggéey lañuy def li ngeen def du yoon du dëgg du yoon. li ngeen def du dëgg du yoon. dama ne jàpp nañu ma doon mën a laal. moo laal ASP bu ma laal. eh bu ma laal laa wax dégg li ma la wax voilà. sama liggéey sama eh sama liggéey. eh bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko eh, eh. sama liggéey laa def sama liggéey laa def ma dara eh oto ma dara voilà kii wàccul fii du yoon voilà ñu du yoon sama liggéey laa def man mais defuñu dara duñ doon dem dëgg kii mais lan lañ def mais gars yi ñu ngi nii police jëppal ñëpp a ngi police jëppal saa eh ñun dañu doon def suñu liggéey. defuñu tous. voilà suñu liggéey lañ doon def suñu liggéey dañ doon def. keneen naa fi dara toogal. laay def baala moo la baala rek man kenn du ma def dara man sama liggéey laay def de. maire nee na nga arrêté nga publier lu la neex. jëlal kenn laaj dara. taxaw ma bàyyi ma waay yow. daw ma fii lay taxaw ma bàyyi ma bàyyi ma di taxaw. waaw waaw waaw.